الصابر العلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الصابر العلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الصابر العلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولقى القلب ما صبح نصر أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق القتل ما سبح ناس أخلاقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح ما ولق والقلب ما سبق نزل أخلاقه أسلك المستقيم وعلى أهلي حق قدره ومن alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun rabbil déglu Seydina Muhammad Rasulullahi alayhi salaam nee na kenn ku nekk na jàng Fatiha gannaaw aousu billahi min asheytaani rajim gannaaw Fatiha bismillahi rahmani rahim fatiha jeex jàng salaatul fatiha ñetti yoon wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam adiya ak tijaani ak i xulafaaw yal na yàlla tubbulu seen leer dugg ci seeni leer allahumma amin allahumma amin amin ya rabbal alamin mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen balu àq sëriñ bi ñu lay defal contrandi bu gàtt ndax guddi na ñi nga xamante ni danga ñoo boole woon ak ñoom muy gouverneur Mouhamed Fall baas yi yëpp moom moo ko toppatoo teg ko ci loxol ama ñëng jéen ñu andi ko préfet alxaaji Magatte Diallo la mu waxoon lépp def na ko ak chef de service yëpp boole ci ñaari oto def ci carburant mu nekk ak ñun démb ak tey alxaaji Malick Diop maire dëkk bi ak ay adjoint la ñu waxoon ci ndimbali commission bi def nañu ko ñu lay wax ni sa doom commissaire Samba Sy ventilo yi fi nekk yëpp muy vingt ventilo moo ko fi indi ngir tàngaayu bëccëg bi sa doom jara directeur Senelec bu Tiwaawan daf ni kenn du fay branchement bi moom moo koy fay ci poosam ONAS Aline Diop di directeur général bi ñetti otole fi yónnee démb ak tey ñuy jël li nga xamante ni mooy ndox yu tilim yi ci kër yu mag yi taxawaay bi Coskas daan taxawee ci turu Mame Ousmane Samb def na ko di la xamal ni lépp loo xam ni daal santaane woon nga ko ngir yàlla jëmmal ziyaar bi fa tabaarakallaahu amundu ci benn jeexital lépp mat na fa tabaarakallaahu di la wax ni programme bi dañ koy jox alxaaji Mansour Mbaye moom mu tëral programme bi ni mu tëdde ndax mooy boroom micro bi ngeen baal ñàq asalaamaaleykum jataay bii nu toog ña ca barsàq bég nunu ci képp ku yaakaar sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick bég ngi ci Seydi Abdoul Aziz Al Amin toog Seydi Boubacar Ibnu Alaaji Mansour toog Cheikh Sidi Alhaji Malick ibnu Seydi Boubacar toog Cheikh Sidi Alhaji Malick moom ibnu Alhaji Abdoul Aziz toog waaye jataay bii mooy jataay ya xam ni ca dëgg-dëgg mag ñi bëggoon nunu ko moom lañu daan def it woote bi nga woo waxoon nag ci télévision yow Seydi Abdoul Aziz Al Amin ni sunu mag sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe Cheikh Sidi Ahmed Tidiane El Maktoum wax na ko woote ba taalibe yépp dégg nañu ku gis ziar bii ni sa woote bépp taalibe bu aju ci sunu kër maam Cheikh Sidi El Hadj Malick na ko ndigal la nga waxoon ni sa mag sa xarit sa sopp Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moo la ko jox ndigal loolu ñépp dégg nañu ko di bég nag ak di kontaan waaye jataay bi yal ko yàlla yàggal si Malick Seydi Abdoul Aziz Al Amin lii nu la jox ca mag ñi joxoon la ko di ñëw ba Seydi Mouhamadou Mansour ba tey sunu mag Cheikh Seydi Ahmed Tidiane El Maktoum yore ko lépp rafetal nga ko yal na yàlla rafetal si lépp si ak sarak yi nga dendal léegi nag pour bañ guddal ndax waxtu wi jot na waaye daal bég nun de lool léegi nag programme bi nii la ko Seydi Abdou Aziz Al Amin tërale waaye si ma wax ni kontaan naa de démb la xew ca masjidu rasul waaye kontaan naa waaye si Malick Seydi Abdou Aziz Seydi Boubacar Haj Malick Haj Malick <laughs> Haj Malick kontaan naa ah, lii le Seydi Abdou Aziz Al Amin tëral ne ma jox ki fi représenté le président de la République le président de l'espoir nu koy wax le président Macky Sall kan le préfet Maguette Diallo moo ko présenté su pare ma jox ñi xam ni Khalifa Niass bi mu demee Seydi Abdou Aziz nii le ko bindee noonu laa koy doxale it préfet vous avez la parole. salaamualeykum wa rahmatullah. Euh, sëriñ Abdul Aziz Alamin maa ngi lay nuyu di la nuyu ti nuyu bu sell di la yóbbante nuyu ci kii nga xam ne mooy suñu kilifa di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yàlla wàcc ko lu yàgg suñu kanam ñu ngi lay nuyu dañuy nuyu suñu kilifa yu baax yi fi toog yépp ak bañ a guddal ndax fi mu nekk gudd na guddi na njabootu Seydi Hadj Malick si yëpp di sant yàlla nag ba mu xam ba mu ñu mayee ren également ñu ñëw fekkee waat bis bu màgg bi bis bu tedd bi ma ñëw fi nag ak euh, délégation bi ma àndal ci turu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak madame le premier ministre monsieur ab euh, Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l'intérieur ak gouvernement bi yëpp ak gouverneur de la région Mohamed fal nga xam ni mu ngi jéggalu ndax waroon na fi toog tey waaye xam nga fan yëpp yaramam dafa sutanti ñu ngi président de la république mu ngi yóbbante nuyoo ci famille bi di yóbbante ziar di feddali cofeel ak ak ak euh, mbëggeel gi mu am ci kër gi ak yaakaar bu dëgër ndax kër gi ku nekk xam na ko fii këru diine la këru lislaam defe naa fii comme ni ngeen koy waxee rek dañu fiy tabax nit ku yàgg dégg ku yàgg xool xam ni fii l'islam rek fi am kon président nee na mu lay gërëm di la sant xam na li nga xam ni suba ak ngoon yéen a ngi koy taxaw ci njaboot gi ci wàllu diine waaye ci wàllu àddina yee njaboot gi ñu ànd nekk benn jaamu yàlla liggéey jëf ci seen bopp jëf également ci réew mi te defe naa loolu mooy li nga xam ni ñun ñëpp loolu la ñu war a def parce que réew mi bu ñu ko bëggee tabax ñun ñëpp il faut ñu ànd nekk benn te loolu alaaj sëriñ Abdou loolu doo ci jóg ba biig moo ci mujj kàddu yi nga yëkkati biig ci gàmmu soxna ummi ñun ñëpp dégg nañ muy kàddu juboo ànd nekk benn woon nit ñi euh, ni leen euh, ñu ngi jublu nag ci ay compétition élection waaye yëkkati nga kàddu yu am solo jëmale ko ci nit ñi ni nañ ko def ci jàmm nañu ko def ci dal parce que réew mi mënuñu ko xaajoo ñoo ko bokk xëy na mën nañoo xëccoo waaye nañ ko def dans l'intérêt du pays loolu nag nekk na loo xam ne diplomat ñëpp dégg nañ ko eh, président la république mu ngi leen di ñaanal yàlla def fi jàmm saxal fi jàmm def fi xéewal te di ñaan yàlla également ngeen ñaan yàlla def jàmm ci réew mi eh, réew mi naat yàlla kattanal ko ba lii nga xam ni tënk na ko def ko ci li ñuy tuddee le plan Sénégal émergent te ñun ñëpp ñu am yaakaar bu dëgër ni buñ ci tënkoo taxaw ci liggéey ci comme ni mu ko wootee ànd ci boole suñu xel ak suñu xalaat ak suñu effort yàlla mën a def suñu réew mu suqaliku kon loolu président de la République mu ngi la ci yaakaar di ci yaakaar Serigne Cheikh di ci yaakaar njaboot gi yëpp euh, ñu nit ñu ngi lay gërëm lool di ñaan yàlla ngeen ñaanal suñu réew mi Sénégal yàlla def fi jàmm bu ñu ku xool li xew ci dans la sous-région nga xam ni yàlla def na fi jàmm waaye nag jàmm du doy te bu ñu am jàmm rek toog ni yàlla may nañu jàmm rek nañu toog déedéet fas fas lu mu mën a daw daw ñu labaliku kon sëriñ bi ñu ngi gën a tàllal suñu loxo di ñaan feebar bi nga xam ne également mu ngi wër sous-région bi nga yaan yàlla yàlla defal ñu fi jàmm mu bañ a dugg suñu réew te réew yi nga xam ne également dugg na fa yàlla def fa mu génn fa ak jàmm Casamance gi nga xam ni ci Sénégal la bokk te kenn mënu koo taqaleeg Sénégal nañu ñaan yàlla yàlla saxal fa jàmm delloo si xel yi ñu ñëpp ñu nekk ànd benn loolu laa amoon ci gàttal parce que guddi na di leen ko wax encore une fois di leen gërëm leen sant di wax ni ñun ñëpp vraiment ñun administration fii ci Tiwaawan ñu ngi sant yàlla di leen sant di sant njabootu ala ala Serigne Hadj Malick Sy suñu liggéey yomb na fi mënoon naa jafe waaye yéen da ngeen ñu ko yombalal lépp loo xam ni waroon na jafe bu ñu ñëwee ci yow sëñ Abdou bu ñu la ko waxee nga indil ñu solution kon ñu ngi lay gërëm leen sant asalaamualeykum wa rahmatullah